mais bu fekkee ne duñ wax li raayat ci làmb ji kañ la làmb ji jub CNG da ngay gis koo xam ne day daw responsable yow arbitre en tant que arbitre jëla sa responsable fu mu yem neex tëggum dandak semaine neex benn naqari benn mais wax dëgg bu mu la teedee mhm. mais defoo ko deux fois kooku lu ko war a def te pourtant bu doon mbër ko def ñu aj la an bi nga juumee lañ la corriger boo mhm. juumut kenn du la corriger njaati gi am déet dëgg la boo déggoon ñu ne suspendre nañ ko beneen arbitre du ko defaat boo déggoon ñu ne dagg nañ ko si xaalisam beneen arbitre du ko defaat te arbitre ñu nag ñoom la. te kaw ni làmb ji demee bu Bombardier génnoon ñu teg ko daan. sama benn booy dafa bëri ji barki démb daanu si avertissement booy biri leen ma ma daalal ko si yoon sax nga xool image ñu ñëwee fekkewuma combat bi ñu ne ma biri si leen taxawul chaque jour bu ñu léewtoo day léewtoo ba génn chaque jour bu ñu léewtoo mu léewtoo ba génn ba muy cinq ma ne ko lekk na avance booy mbër mu ndaw daanu daanu professionnel. Mm-hmm. daanu quatre vingt millions léegi ay avertise la loolu neex na quatre vingt millions ay avertise loolu tamit nañu yërëm dëgg neexul grand ñun du ñu ndekki fa la ñuy fem boo teewul tarang doo dugg te man foofu respecté naa ko kon amuma lu may ragal baalo dama doon bégal di ma bégal ba juum bu juumee damaa war a ñëw wax lan la juumee baalo juumul de ñi ko topp ñoo juum. parce que foo daawul dem boo fa demee da ngaa war a jël risque xam ne tey jii de taxaw naa si ci mikaay jàmbur kii bu daanoo fu ma jëm. Mm-hmm. mais est-ce que ñu ngi bàyyi xel loolu man damay jël risque yooyu mu leer ma ne maa ngi nii di dem di dem booy bawal tey mais booy bawal mii may nuyu tey si làmb ji bu daanoo fu ma jëm parce que làmb daa fiir. lu si mm-hmm. bokkul dañ ko si génne. Mm-hmm. ñoom ñoo am risque dem di ñu won loolu ay booy ay ay coppet yoo xamante ni xam nga tojuñu fenn ay musique lañ xam man damay dem si ay musique di si wax. ku ma xam man may dem ba jaxaaw dëkk buur ku mën doo fen di fa seetaan defe voilà njëkk a gisee pormeris na leen bu ñëwee Sénégal toj ko. léegi ñu gis làmb euh, làmb di dox làmb di dox làmb di dox ku ne ñëw wuyu si làmb mhm. ñu dem ba ci biir euh, yu ci bay bokk ci làmb ñu ci bari di yàq làmb ba ñu gis si système boo xamante nii ñu ci bari yaakaar nañ ne luy doxal làmb la muy système pay per mhm. ñu ci bari nga koy jël bu ñu tëggatee làmb léegi télé dootuñ ko wane dañ koy jaay. par code nit ñi du ko seetaan kaw ñu gis ki nga xamante ne nii mooy suñu papa Gaston nee na PPV day doxal làmb lig euh, lig ne PPV doxalu làmb Ama Baldé ne PPV ci li gën a rey làmb loolu ci la bokk naka nga gisee loolu. xoolal PV loolu muy wax naan ay PPV day doxal làmb. Mm-hmm. si poosam lay doxal waaye doxalul làmb. ki tëgg làmb. Mm-hmm. mën na see gañe mais ki seetaan làmb du si gañe ndax tey jii bu sa bu sa téléphone bi mu baaxul vide noo koy seetaane ñëpp amul téléphone bu mën a seetaan. ñëpp amul téléphone bu mën a seetaan. tey am na si ñoo xamante ne bu ñu naree jënd di code beeg di ko dugal ak yooyu incité boobu ak seen crédit di naaw dina leen jaral duñ ko jënd. Mm-hmm. mais na wax à part Sénégal dootoo ko seetaan. am déet bu la fekkee Sénégal muy sa bénéfice. Mm-hmm. te mun na ko boo demee si diaspora bi boo demul code foofu bi doo ko seetaan. Mm-hmm. mais ñun ñoo dundal laam ba mu mën a defar loolu. kon na yërëm supporters yi. parce que képp koo xamante ni mi ngi koy def du publicité bi day ñëw sponsor yi. Mhm. mais tey jii bu dee bee est-ce que sponsor dina bari du bari. Mhm. parce que risque la. tey jii da nga daan seetaan ba si yàgg ñu dawal publicité dawal ko lu. yàgg ñëpp toog ñëpp xaar ko. Mhm. parce que li ngay seetaan moo si ne. waaw loolu mooy tax sponsor yi ñëw. mais boo demee pervers bi kuy ñëw. ginaar day gis kay taxani gis kay bojj di topp kay taxani du ko def. man xanaa xamoo mënu ma seetaanee làmb kër ga. télé. Mm-hmm. dem seetaani ko moo may gënal seetaan télé parce que man damay seetaan tuus damay seetaan dox mbër xool organe xool dërsoo yi xool laaf yi xool tànk yi kon kooku bu ma ko bëggee xool si tele du ma ko mën. Mm-hmm. keneen ki tele rek la ko mën a seetaane kooku dina ko arrangé mais kii dem laa moom xàmmewul buñ boo jag buñ boxam. léegi ñu doon gis euh, euh, noonu laa ko mën a waxee waaye ñu doon gis euh, buñ bu bu bu làmb amee ñu ko jàllale ci tele yi. da ngay gis sponsor yi dañuy ñëw. Mhm. mais léegi publicité yi am. Mhm. ngay toog di seetaan télé ba ci yaa gis publicité ñoo làmb diw am na. mais léegi su fekkee système PPV bi euh, publicité yi dootu daw ci télé bi des fois da ngay gis làmb ju am ba mhm. bu budul amateur yi ñeneen ñi ñoo xam ne sax làmb am na da nga naan diw may ba ñu ne ah man yëguma ko woon. waaw parce que tey jii bu dee publicité bi sa ngoon dinañ dawal publicité bi génn mbëri wax sa door ma ko Aziz. nga baal ma solo waaw. wax Zador di wax lii Balla Gaye diw ak diw bu paree waa tegaat Zador tegaat yeneen yi bu yaagee doo xamul woon diwlin bi sax di nga ko jéem a lijjanti. ba xam fan la diwlin bi ne. mais bu fekkee ne loolu amut looy looy publicité doo publicité du dox làmb nañ ko teg fi mu nekkoon ba egsi fii mais bis bu ñu ko jëlee fi mu nekkoon di fi indi affaire professionnelle ñun ñëppay sonn làmb ji xoolal léegi set ndënd la ñuy wax set ndënd set ndënd lu mu mën. mun la ah. làmb li ko doon neexal nañ ko si bàyyi bu yàggee ñaari ndënd la ñuy wax ñaari ndënd kooku làmb joolaa du neex làmb <laughs> joolaa la kundun kundunun loolu boo ko dégloo bu yàggee da ngay wala ngay nelaw làmb këng këng këng këng këng bi wax neer bi waaw waaw ah cib <laughs> ah, buñ ko yërëm quoi dañ ko wax mu neex parce que tey jii ñun ñoo ko moom buñ ko yàqee day yàqu rek mais lamb da ngay dégg galañ xolal baabu ngoom ma wax la tey jii nga xamante ni yàgg naa si làmb ji. Mhm. Babou Ngom avant muy siiw Pa du Njaay Roos la fi fekk. paa bi mhm. ay loxo la doon tëgg. Mhm. mu xam ne kii du nekku ñun du neex a bëreel. mais gis nga bi mu jëlee élan ba indi yëkkini bi mu ñëwee daa tegal Pa du Njaay Roos 32 ndeer naan nii moom tamit mu neex si man trop. mooy man xam ne paa yi ñu ngi bëri si biir tëgg. mais tey jii xoolal Babou ngoom ni mu siiwee kan moo ko gën a siiw si tëggkat yi. xool tëggu si ta booy boobu. jiili moo fi njëkk indi cung. jiili tërë ma njamban kënd kënd nga kënd kënd tekkin kunda kun kun ko tekkin kunda kun kun ma ne Ibba ku def lii. ñu ne ma booy bi waaw waaw jiili <laughs> loolu dafa neex. war nañoo xool ku dàq tëgg ñu jox ko médaille. Mhm. ki dàq tuus ñu jox ko dara. parce que am na ñoo xamante ne tuus leen andi ci làmb. mais luñ kaa teg fee tournoi mbër mi si dàq fair play ñu jox ko si dara bonus mu am trophée am teg ko néegam. yaa ngi wax làmb de. ah yaa ngi wax làmb de. de bëri naa si làmb ba toll nii xoolal moo ma may trophée bi mosuma xaas mosuma def dara ñoom ñëpp dinañ reyante loolu. ballon door lu ko waral. tëggkat bi daa tëgg sax. mën nañ koy mën nañ koy compal jox dara. parce que ay millions la ñuy tàgg grand. mën nañ si yëkkati benn 500000 ni ki dàqal tëgg si ren moo moom 500000 dinañ tëgg si normal tëgg ko mu neex tëgg ko mu demee làmb mën a neex mais xoolal dañuy dagg affaire yi doo xam fu mu jëm. arbitre bi bu tardé kenn du ko dagg. bu defee mhm. erreur kenn ko dag Sitor li mu def du erreur. Mhm. kuy bind record di si jot war nañ laa aj. wax dëgg yàlla lamb dox. boo lëggee du def erreur. Mhm. soo yóbbu sa mbër yow entraîneur bi nga ko ne sa waaye fii amatul maye de. bëreel lu leer mu xam ne lu leer lay war a bëri moo waral boo yëpp a yaru.